maaleykum mbokki julliti mbokki taalibe yi mbokki Touba Argentine ak li ko wër yéen a ngi jàkkaarloog seen télévision Touba Argentine TV ci émission bi nga xam ne mooy émission nekkinu daayira yi fii ci Touba Argentine tey nag ñu jógoon seet si waa kër borom daari muxti yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Argentine nekk fii ci Fulares ah ñu toog nii ak jëwrin ji di maam Thierno Amar ñu fas yéene wéyal émission boobu nga xam ne moom la ñuy doxal ci réew mi te ñëpp safoo ko muy nekk ñu daayira yi maam Thierno ñoo ngi lay nuyu maam Thierno émission bi nekkinu daayira yi moom moo ko tax a jóg ñu bëggoon a xam nan ngeen di daayira fii ak seen daayira bi nan la nekk fii ci Fulares. waaw sa Assane ñu ngi lay bu baax waaw daayira bi moom ñi ni daayira comme ni ma ko waxee léegi nii rek muy dajaloo bokk taalibe bi nga xam ne ñoo bokk bunt Serigne Touba muy borom daaru di jàng alxuraan jàng xaside joxe addiya ji nga xam ne si. mooy jëm ci ki fi nekkal boroom daaru noonu rek lañ koy defee di jàppalante suñ biir di dimbalante wut sociale yëpp comme noonu rek ni ko li nga xam ne moo tax a jóg daayira rek moom noonu lañ koy def fii daal li nga xam ne moo tax a jóg daayira noonu ngeen koy defee fii bu ñu sañoon nga leeralal ñu lan moo tax a jóg daayira ngir jaam ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan xam euh, njëriñu daayira ak li tax a jóg daayira. waaw ah, jërëjëf sëñ Assane daayira moom ku ne xam na li ko taxoon jóg li taxoon sëñ Cheikh kii ko mooy booloo nekk benn di dimbalante bu ko defee di dajale adiya di foo mën a nekk dana tax nit ñi nga xam ne taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi dana mën kenn du ci sànku te dana dajale dajaloo nekk benn di dimbalante képp koo xam ne loru na ci ñu mën koo dimbali. moo tax boo gisee daayira bi dañ ko wutal li nga at yi ji nga xam mooy dem wutal ko social spécial boo xam ne koo xam ne yaa ngi ci biir mbooloo mi te ko ñu jàppale la ci ci sutura nag bu ko defee tamit di soññante li nga xam ne moo ñu fi indi muy liggéey ak jaamu yàlla nga xam ne duñ ci mën a bàyyi dara daal yaakaar naa naa buñ fi dajee tamit li ñu jëkk def comme ni ma la waxee jàng alxuraan jàng xasida waaye li ci ëpp mooy dimbalante bi tamit ak yóbbu addiye ji tamit ndax murid moom amul lu dul yóbbu addiye yaakaar naa ne kon daayira bi mën naa koo tënk ci ñetti point bu fekkee tamit am na leneen loo bëgg tamit mën nañ la ci leeral lu bare baree bare waaye daayira bi daal ñun su daayira borom daal ni muy doxe mooy buñ dajee jàng alxuraan jàng xasida joxe addiye wut social boo xam ne dañ ko teg na la képp koo xam ne ittewoo nga ko ci biir mbooloo mi mën nañ la ci jàppale te kenn ñaar du koy ñett du ko yëg bu ko defee tamit képp koo xam ne toog nañ gisuñu la daan la nemm ko tax ba xam ci loo nekk bu ñu fi dajee tamit danañ soññee ci liggéey ak jaamu yàlla gi nga xam ne moo ñu fi indi loolu daal noonu daal la daayre daayira te jàpp naa ne loolu tamit mooy dëgg-dëgg daayira. jëwrin maam Thierno daayira bi kañ lañ ko taxawal ak it ci lan ndigal lañ ko taxawalee ak ci kàddu kan la daayira bi bàyyeekoo ba taxaw. waaw jërëjëf sëñ yaakaar naa ne daayira bi moom bi ñu ko taxawalee yàggul ci ñetti at xam naa lay toll mm-hmm. ci ñetti at maanaam daayira bi tamit ci bi ñu koy taxawal. xam naa ne mbokku taalibe yi daanan dox ci dëkk bi di dajante te dawuñu xàmmante am na ci ay taalibe yoo xam ne dox nan ba waxante kii ku laajante fu ma bokk kii na ko waa kër borom daaru man nag daayira bi ci ni ma ko yëg mooy ku ñuy am sax xam na ko dafa nekk fi dafa dem Sénégal moo ñëw suñ kër ñu daan jëflante mu wax ma ko bi ma ko waxee tamit ñoom ñu waxtaan ci seen biir ñoom sëñ xaadim ka nag sëñ maam Thierno ak ñeneen ñoom sëñ ñu bari daal fii ñoo xam ne ñu dajaloo ci hôtel hôtel Bawol di ko war ko fa waxtaanee léegi ci lan ma woo man ma daal di ñëw man sax fekk naa gars yi dajaloo daanaka ci mujj ñëw ci daayira bi ci laa bokk bi ñuy waxtaan pour taxawal daayira bi après ci lan ma woo ma ñëw ci lan waxtaan xam ne kat nit ñi buñ bokkee dara war na ni wut fu ñu koy dajee di ko fa waxtaanee di di fa dajaloo ñu waxtaan waxtaan ba déggoo ci seen biir bi ma ñëwee tamit man lan ma wax na ma kat yow ko lan bëgg nga jiite daayira bi. te booba yaakaar naa ñi ma ci xam bariwul yaakaar naa booba am sa laa ci jot a xam ñu ci bari yaakaar naa xamante wun léegi nu ma ko waxee tamit ma xaw na maa insisté waaye lu baax moom kenn du la ko wax nga ci dellu ginnaaw ndax jiite ko moom taxul nga doxal daayira bi taxul nga moom ko waaye da fekk na ñu nekk sa ginnaaw ànd ak yow di am positif te ñor leen ban taxawal ko tamit ñooñu ñoo la ci mën a jàppale yaakaar naa bi ñu ko taxawalee ak bi màggalug nisfu Saabaan ñëwee màggalug borom daaru di fukki fan ak juróom yaakaar naa motu ko ci lan daal di taxawal bis booba daal di màggal fa màggalu borom daaru bi nu ko defee tamit ci la taalibe yi bari xamoon xam ne xamuñu woon daayira borom daaru am fii lañ commencé ñëw ndànk-ndànk ñuy commencé ñëw ba ba nit yegsee fii tey ci noonu daal la ci gaa yi waxtaanee ba taxawal ko man na xam naa ne ci mujj ñëw ci daayira bi ci laa ñu ko mujj kii daal ci laa bokk. ñu ngi dégg ci sa biiri kàddu nga ne ñi mujj ñëw ci daayira bi wala ñi ko mujj yëkk ci nga bokk kon jëwrin ji nga xam ne moom lañ la tab ba fal la ko ci kàddu kan la bàyyeekoo. waaw sëñ Assane loolu nag maanaam xam naa ne du ma ko maanaam ndax bi may ñëw man fekk naa ñu réunion daanaka ba pare fekk damaa xaw a tardé ci lan ma woo ma ñëw bi ma ñëwee ñu ne ma gaañu waxtaan ba pare leen lan bëgg jiital da mën a leen ah te ngeen a xool keneen ku mën a kii ndax xam naa mën naa cee lottu ñu ma daal yow lañ jiital fekk ma am na ñu ma àndal ñu ne ma ah lu baax kat kenn du la ko wax ngay kii waaye mbir mi moom da ngay da ngay jiitu rek waaye ki ngeen koy defal moo ciy teg loxo. léegi ñu ñu ñu wax ma ko ma ne leen bisimilah waaye nag wax leen ni nga xam ne moom laa bëgg àndeek ñoom na leen kat mën na maa jiitu da waaye da ngeen di ànd ak man ci liggéey wut ñoo xam ne ñoo ciy jàpp ñun ñëpp ndoxal ndax daay rek kenn mënu ko da ngay jiitu rek ko ñoom tamit dëgg yàlla na ma leen ko wax woon gis naa ci lu gën a kaw sama njort ndax ay nit lañ yoo xam ne yaakaar naa ne man ci biir daayira bi am na ci ñoo xam ne ñu ñu ma gën a xam liggéey bi ëpp ma xam-xam gën maa bëgg liggéey bi ñu ngi fi te duñ feeñ boo gisee nag mbir mi doxanoonu ci ay fan ci at yu néew ñëpp xam ko te liggéey bi macha allah di dox xamal ne am na lu ne ci biir lu koy doxal waaye man damaa nekk ci kanam rek waaye ñu am posteef ñu gën a xam liggéey bi ñu ma ëpp xam ñu ngi ci biir liggéey bi d'ailleurs borom daaru lépp lépp loo gis ci dëkk bi nit di ko doxal wala nit di ko def rek mi ngi ci biir biir biir daayira bi waaye ñoom duñ ko feeñal noonu daal la demee. kon jëwrin maam Thierno danañ dellusiwaat ak yow ci li nga xam ne mooy laaju uh, daayira bi waaye li nga xam ne moom la ñu bëgg a laaj di ko jëmale ci ki nga xam ne mooy jëwrin ji ndax uh, gis nañ ne ak it xam nañu uh, ne seexub sëriñ Touba la sëriñ Touba moo seexal maamam ndax seex googu mën nga ñu cee leeralal tuuti ndax ñi ñuy seetaan xam kan mooy maam Thierno Amar. moom ndongo bu xeeb la xëy na sax daayira yu ci bari maanaam ñun dañ koy béyte ndax nit ñi ñu ci bari fii ngay xamante ak ñoom sëñ Tuubaa moo lay booleek ñoom ak daayira ak yooyu waaye am na ñoo ci xamul sax dañuy jàpp ne daayira bi nga jiite ci nga bëgg a occasion wala wala ci ngay sole mbuumu kii wala dara ci ngay kii ñu ngi nekk fekk du loolu maanaam wax dëgg yàlla de am na bokk na nag ñu bari ñoo xam ne si ñu ngay toog di laaj àddiya wala ñuy def leneen waaye li ñu jàngal mooy liggéey ak jaamu yàlla xëy loolu nga wax lu am la ndax wax dëgg yàlla day am na ñoo xam ne def nañ aslamtu man aslamtu nafsi ci man waaye man loolu lépp ñu ñor ma li ma ñor mooy ak taalube te nekk taalube sëñ Tuubaa rek moo ma ñor waaye ñëw ma fii tamit pour wane ak sëriñ wala pour wane dara liggéey ak jaamu li may ñaan daal bu ma kenn gis ci loo xam ne neexul yàlla loolu rek mooy sama passport te ku may sàkku ñaan loolu laa lay ñaan loo nit nag sa cër kenn du ko bañ te ñu ngi koy safoo bu baax di ko doxe waaye du question dañ koy puukare wala dara waaye comme ni ma ko waxee bari na daayira yoo xam ne nit ñi dañuy jàpp ne da jiita mbooloo di ca occasion waale wala di ca bëgg cër wala di ca bëgg rey loolu ñoruñu buñ loolu ñoroon tey duñ ñëw fii Sénégal waaye dafa fekk na man suñ kër gi ma bokk waa daaru xudóot lan man la ci suñ borom cëre la ma nekk waa kër borom daaru te ma bëgg ko te safoo ko ñu tuddee ma maam Thierno monsieur Cheikh Awa muy sama sëriñ di sama yaakaar di sama lépp ma ma koy doxe tamit biir daayira bi tamit ay boroomi xam-xam ñoo ci nekk ay nit ñu sell ay nit ñu pëseefu ñoo ci nekk waaye amul kenn koo xam ne danga ko ci feeñal te daayira bi dama lay wax ne maanaam ñi li tax daayira bi mën a doxe nii te mën a yegg si fii mooy ñi fi nekk dañoo bëggante maanaam jàppante maanaam ñun li tax ñu doon def daayira dañ koo gis dafa dafa am ci biir daayira bi maanaam boo leen boo leen boo boo dugg seen biir mënoo ko xam waaye man daal suñu asan ma lay wax ne la maanaam maanaam ak taalibe rek moo ma ñor te ci ci ci média laa nekk li may wax xam nañ ko ñi nekk Sénégal ñu bari mën nañ ko seetaan waaye wax dëgg yàlla bu ma ay ay ay sëriñ ak yooyu ñoroon du mën naa toog Sénégal te tamit sëñ Touba dana ma waaye sëñ bi danoo liggéey teral euh, jàngal liggéey ak jaamu yàlla te ñi ma xam ñëpp xam na ne fu ma nekk damay liggéey kon nag ñi ngi ñi ngi ñi ngi siyaar ñëpp rek di di sàkku ñaan ci ñëpp rek sëriñ bi ndongol ñu sunu taale bu baax a baax ndax loolu rek moo am solo loolu rek moo am solo waaye bu jàpp ne maam Thierno daayira bi da ciy occasion wala dafa bëggub cër wala bëggu dara ma sax jiitu waaye nit ñi bu ñu tànnee ne la jiiteel boo jiitewul rek day day nur leneen waaye nag jiite moom ñoruma sëriñ ñoruma leneen ñoruma taalib sëñ tubaay rek moo ma moo ma ñor wallaahi la azim te mooy dëgg si man waaw loolu rek moo am solo waaw kon ba tey yéen a ngeek seen émission nekkinu daayira yi fii ci daayira boroom daaru muxti bi nga xam ne moo nekk fii ci Fulares ñu ngi nii ak maam Thierno Amar ba tey kon ñu continuer ak moom ci laaj yi maam Thierno Amar ndax mën nañoo xam daayira borom daaru muxti bi ñaata nit ñoom ñoo fi nekk ñaata membre ñoo nekk ci biir daayira borom daaru muxti bi di teew. waaw sëñ lay ziar waaw daayira daaru borom bi moom membre yi daayira borom daaru bi yi xam naa ne moom. 87 mm, uh-huh. ci yi nga xam ne waaw 87 xam naa sax buñ ko xaymaa mën naa ëpp loolu ndax bari na ñoo xam ne tam ñi ngi ci àll bi dañuy dañuy wa di ñëw di yónnee seen addiya mais duñ teew ndax dañoo nekk ci yeneen province yi sëñ Assane booy xool yaakaar naa ne buñ koo xaymaa daayira borom daaru bi ci daayira taalib borom daaru yi ñu ëpp ci dëkk bi lan boo xoolee ba ci daayira Miftaaw Nase bi ñuy dem boo fa limee ñi fay ñëw ci daayira borom daaru bari na lool bari nañ fi lool ndax da ngay dox ba yàgg rek xam nga dëkk bi moom dafa yaatu mënoo dajale ñëpp da ngay dox ba yàgg nit na la gis naa benn mbokku taalibe woo ko wala nga dugal ko ci rajo bi jox la rajoom jox la jox la numéro am wala nga dox ba di waxtaan nit ba yàgg mun la waa daaru laa nga jël ko bari nañ fi lool jàpp naa ne bu ñu doon xayma taalibe yi taalibe borom daaru la fii ci Argentine membre yu bari lan mais am nañ Pastef lool bu nu yaakaar naa bu nu yàlla dimbaloon ba ñëpp ñu daje lu ne mën nañ ko def te ñi fiy daje tamit jàmbaar lan wax dëgg yàlla ndax addee ji nga xam dañ ko yóbbu chaque année day gën a yokk màggaluk borom daaru yi gi nga xam dañ koy def chaque année day gën a taw feexe ba xeexoo yi fi am ci dëkk yëpp ba ci màggaluk Serigne Touba yi wax dëgg yàlla dañ ciy jaayante jàmbaar dëgg lan wax dëgg yàlla bari nañ fi bari nañ ci sax ñoo xam ne xëy na ñëwaguñ ci mbooloo mi te ñu ngi ci dëkk bi waaye sëñ Assane dama ciy profité rek di soññiwaale rek képp koo xam ne taalibe borom daaru ko te nekk ci dëkk bi nga ñëw ci liggéey bi moo xam ci province bi nga nekk moo xam ci capitale bi nga nekk ndax sori tamit du la tee di bokk ci liggéey bi ndax liggéey bi moom boo soree mënoo ñëw tamit mën ngay jox yónnee sa àddiyee ndax bépp taal borom daar bu nekk ci àll bi tamit boo soxlaa bagage xam nga ni ngay def ba jënd ko boo soxlaa dara capital xam nga ni ngay def ba yónnee ko kon yaakaar na addiya joo joxe fee ci daayira bi waru laa të kon fu ci waay nekk nay bàyyi xel na daayira baa ngi fi ab taalibe nag du làqatu fa mu bokk fa nga nekk da nga caa war a fés ndax mooy mooy warif taalibe waaw kon jëwrin maam Thierno ba tey gis na ne ndeysaan waa kër borom daarul muxti ñoom la ñuy wooyee baay daaru yi ndax gis na ne rythme bi ñu am ak euh, ni nga xamante ne ni ñoom la ñuy dunde ñoom maanaam boo leen fekkee seen jataay maanaam jataayu kii lay doon dañuy giree wante ci seen biir kii maanaam dañ ñëw fii seet si waa kër borom daaru yi gis ñu sedd lool ndax xam nañ ne loolu ci yow la wala it ñi nga xam ne ñoom nga jiite ñoom la suñu borom binde noonu. fii moom wax dëgg yàlla gars yi en am na tamit ñoo xam ne tamit ñiy yëngu ci maanaam boo xoolee waa daaru ci nga jël ku mel ne sëñ Modou Kara ak yi dafa xaw a jaxasoo daal maanaam danoo am na ñoo xam dañoo yor rythme Baye Fall maanaam danoo xaw a jaxasoo daanaka bari na fi taalibe yi borom daar yoo gis ba ci daayira maam Cheikh Fall bari na yoo xam ne ay taalib borom daar la ay taalib Cheikh Modou Kara lan ñoo xam ne dañuy yor style Baye Fall am na ci ñoo xam ne tamit danoo comme sama classe gi. comme ku mel na Cheikh Abdoulaye sëñ maam Thierno bari na ci danoo sedd maanaam dañuy sedd ku boo jëlee ku mel ne Ngañ mee jël ku mel na Samba Kara jël ku mel ne ay njoogu ñoom gaa yooyu tamit danoo xaw danoo yor style Baye bi maanaam boo xool taal borom daaru moom ñëpp a ngi ci. loo ci soxla doo ko génn. mën nga ko féewal ñoo bokk benn kii buñ bokk waaye maanaam. dama lay wax ni borom daaru sëñ Tuubaa da ko defal loo xam ne lépp lu muy wër du génn ci taalibe ñi ngi ci. boo soxlaa Baye Fall doo da ngay ci biir bu taalib borom daara nga dugg génn Baye Fall boo soxlaa ab suufi wala keneen ma sëñ maam Thierno nu mu koy waxee ku gën a sedd wala dara mën ko koo génn ci ku ci taalibe borom daaru yi maanaam lépp ngi ci daf sëñ Tuubaa daf ko defal loo xam ne lépp la ko daxañal ci biir maanaam ñëpp a ngi ci maam dafa bari ci taalibe borom daaru yoo xam ne danoo yor style Baye Fall comme ñu mel ne taalibe sëñ Mudu Karaay ak ñeneen a ñeneen bu ku mel na man ku mel comme ni ma ko waxee léegi. danoo sedd lool waaye dañuy am yëg-yëg nit dana yëg lu bari tamit sedd am na ñoo xam ne bu ñu yëgee dara il ñu yëngatu noonu lay noonu lay demee nit ñi bokkuñu daal waaye fii moom boo fi wër moom lépp ngi ci taalibe borom daal di sëñ Assane bu ñuy soxla Baye Fall du génn fii fii lañ koy génnee. waa kay jërëjëf jëwrin maam Thierno ba tey gis nañ ne maam Thierno soññeem maanaam buy soññe day soññe soññe goo xam ne soññe gu dëgër lay doon ndax ñi nga jiite danañ ci gis seen bopp. waaw sëñ Assane loolu moom xam naa dama ciy jégalu lu baax rek ndax sax léeg-léeg ñi ma jege dëgg-dëgg dañ ma koy wax waaye yàlla xam na ne damay bëgg bu may soñee sax di xaw waaye loolu lu ma suñ borom natoo la maanaam tamit xam naa ma nuru ko tamit sama turandoo sëñ maam Thiam sa Cheikh baal la ku la tuddee da nga nur waaye wax dëgg yàlla xam naa ne nur naa ko ndax wax dëgg yàlla bu may soññee li may wax ci sama xol lay jógee damay bëgg sax di la ma bëggoon wax dëgg-dëgg sax damay ànd ak aal duma ko man waaye léeg-léeg bu ma paree laay xa bu ma seetaanee sama bopp laay xam ne damaa dama kii waaye ñi ma yàlla dimbali na ba ñi ma àndal kii comprendre nu ma ci loolu bu baax a baax a baax a baax a baax maanaam am na ñoo xam ne sax bu may bu may soññee dañ may jël ndox tegal moo ko sama wet wala danañ ma comprendre daal yàlla suturaal na ma ba ñi ma àndal moom maanaam sama soññee tàng yooyu moom kii nañ ko te wax dëgg yàlla damaa baax rek soññi waaye ñoom moom ñi ngi ci kanam xanaa moom soññee daa mënut a ñàkk waaye du ñoo xam ne jar nañoo soññ daal wax dëgg yàlla ñoom ay jàmbaar lan wax dëgg yàlla. waaw kon jëwrin ñu ñëw ak yow ci li nga xam ne mooy njëriñu daayira ndax da ngay gis ñaar ñoo xam ne dañuy bokk kër kii di dem daayira kii du dem daayira kii dem daayira suñ borom dimbalee ko tijji wërsëgam ci diir bu gàtt rek mu takk fi xaalis bu takku dem senegal ki du dem daayira nag moom suñ borom xaw koo tegab nattu tuuti kii nga xamante ne moo daaw doon dem daayira bu demee ba Sénégal naan leen kooko de daayira ya la fa nekkee day taxawaalu ko ñaar ñooñu ana lan nga leen di dénk ak lan nga leen di wax. Ah, jërëjëf sëñ Assane loolu bu baax. maanaam kuy dem daayira ku du dem daayira mënuñoo yem mm-hmm. ndax rawatina ci dëkk yu sore yi ñu nekk maanaam jataay yu mel nii daf fi xaw a dafa xaw a jafe kon boo liggéeyee lu mat une semaine ñuy defar daayira Sëriñ Tuuba wala ñu koy defal borom daaru lépp sañ Tuuba lañ kun ko mën a defal war ngaa mën di teew ci daayira yi ndax daayira bi léeg-léeg da nga toog sax sa mbokk wàññeeku nga dem ci daayira bi ñu jàng alxuraan ñu fasaale ko waat ne képp koo xam ne am nga yitte ju far nga jàpp ba sell dem ci daayira sëñ Tuubaa bala nga dem ci daayira bu mu mën doon nga fas soxla suñ borom mën na ko saafara ñaan nag dafa nekk ne day nangu ci ñett man ngaa ñaan dara mu nangu wala nga ñaan loo xam mu fe mu fagal la bàkkaar wala nga ñaan loo xam mu xam ne mu fe mu mu nga ñaan loo xam ne si boo gis tamit suñ borom fegal na loo xam ne loola bu ñëwoon doo ko jariñoo ñaan dafa nekk loo daayira dafa nekk loo xam ne day dolli nit te da nga fa fàttalikoo da nga dax doo fàtte fa nga jógee waaye dama gis ñoo xam ne da ngay comme ni nga ko waxee léegi da ngay nekk damay gis ay nit ñoo xam day nekk kii di dem daayira suñ borom defal ko tawféex di ci dem mu xam ne kii daayira ba rek ko ñor sëñ Tuubaa rek ko ñor mais xoolu ci sax lu mu ca doon intérêt bu mu ca am ak yooyu waaye da ko doon def ngir jëmmi sëñ Tuubaa ndax bëgg lu baax rek suñu ko nga gis koo xam ne nag moom jàpp na ne moom daa war a ñëw daayira suba suba rek am xéewal fekk noonu sëñ bi noo ñëwee ci moom xam na ko foo toll ci moom mu toll ko ci yow maanaam booy ñëw na nga ñëw te jëmmi sëñ bi tax te nga maanaam di ñëw di jàpp ba sell di ñëw di toog boo mënee jàng alxuraan nga nekk ci alxuraan ji boo mënee jàng xës da nga nekk ci boo mënul nga jox sa àddee toog waaye man de rus ruus damay damay ruuslu di ko ñaawlu ab bi nekk ci dëkk amoo benn gàllankoor ñuy defa daayira sëñ Tuubaa wala daayira borom daaru nga toog sa kër nekk ci internet bi wala nga nekk ci ay loo xam ne ay majaali saxaaw lay jur amul benn njariñ di soññ sama kàddu fu mu mën a yegg képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi di taalibe foo mën a bokk wala kone boo mën a nekk ñu fay def daayira Sëriñ tubaa maa ngi lay ñaan nga fay teew ndax Sëriñ Tuubaa kenn mënu koo jox lu ëpp alxuraan ak xasida ak addee ji nga xam ne moom lañ koy jox te Sëriñ Tuubaa liñ koy jox doyewu ko dara ñun rek suñ njariñ rek la te Sëriñ Tuubaa nag bitig la lu fay jënd doog fa am kon nañ bàyyi naxante sëñ bi du jaawale jëfi kenn ak moroomam nagaa yi ñëw ci daayira yi di sellal di joxe addiye di jàng ci alxuraan jàng ci xasida yi te yéenante lu baax waaye toog sa kër ñuy def daayira nga toog sa kër yàpp ne yaa ci nekk yaa ngi nax te jamono ji fii ñu nekk jataay yu mel nii dafa jafe boo néewu ci jataay tamit yaa ngi nekk ci mariage sax wala ngay nelaw nelaw yu bari rek amul benn njariñ kon maa ngi soññ bépp taal bi nekk dëkk foo nekk daayira bëgg la jege nga cay dem ndax lu am njariñ la te nga cay dem nag te sëñ Tuubaa rek tax waaye bul cee dem ngir intérêt kon góor góoru ci liggéey sëñ Touba bi ndax liggéey sëñ Touba rek moo fi des. waaw kon jëwrin ki nga xamante ne nii moom du teew daayira du ñëw daayira walbatiku di dingat kiy dem daayira ndax bu nekkee ci jafe-jafe ndax jëwrin yow danga ko jàppale. waaw ah, sëñ waaw loolu moom amu solo ndax yow miy ñëw daayira mu leer na ci li ngay ñëw lu baax la ka nekk fee di la dingat bul ko toppatu bu ko sax lijjanti boo ko mënee nag fekk dimension bi mu toll. nga waxtaan ceeg moom di ko soññ ba muy ñëw daayira première li ngay def mooy booy booy ñëw daayira ñëw nekk an ma yóbbaale sa addiya di ko nax ndànk-ndànk xool nag dimension ba nga xam ne fa la toll nga fay waxeek moom di ko soññ muy ñëw yàlla mën naa suturaal dem daayira nag yombut jàmbaar dëggu koy def ndax saytaane da lay bës boo toogee ku wàcc naan sa café toog ni sa téléphone nekk ci vidéo yi ñu ne ñëwoon da dem daayira nga ne xaaral ma seetaan théâtre bi wala ma xaaral seetaan film bi boo moytu saytaane mën na laa ëpp doole daayira nag jàmbaar dëgg koy def ak ku yàlla dimbali koo ci gis nag demut dee ko sooñ ndànk-ndànk rek comme ni mu ko waxee te xool dimension moom tool nga cee waxee moom ndimbal nag moom nekkul ci maanaam boo koy def tamit nan ko def suñu borom rek tax waaye ndax nit mën naa nekk sax ci jafe-jafe du ñëw daayira mu nekk ci jafe-jafe nga dimbali ko dana amati kersa toogati booy ñëwati bañ a ñëwati daayira te loola yow ma ko def topp ca ba dimbali ko suñu borom mën na la dala cay fay kon képp ku fi gis koo xam ne du dem daayira nay waxtaan ak moom ci dimension ba mu toll bu mu mën a ñëw bu ko mënul na koy laaj àddi am di ko ëndaaleel bu yàggee dana ñëw ndax suñu boroom tamit dafa sàkk yëmalul xëy na ku nekk ak sa gis-gis waaye daal maa ngi soññ képp kuy dégg sama kàddu daal foo mën a nekk ngay ñëw ci liggéey sëñ Touba bi ndax sëñ Touba defal nañu loo xam ne mënuñu koo fay kon fu nekk di ko jàngal alxuraan di ko jàngal xës da nga koy dingat yaa ngi ci ak lëndëm kon nan xippi te nekk ci liggéey bi ñëw ci liggéey bi bu nekkee ci daayira bu ñu xëyee dem liggéey te bañ a bàyyeeku ci bépp côté boo xam ne wala benn fànn nit moom saa su ne dafa war di góor góor di liggéey comme ni koy waxee saa su ne rek bañ a bàyyeeku te xam ne fii nag liggéey moo ñu fi andi liggéey moo ñu fi nan góorgóorlu ci liggéey bi te jéem a góorgóorlu ci baax doomu aadama moom bu góor góorloo lu mu mën a lu mu bëgg mel mën na koo mel ndax suñu borom moom boo jee góorgóorlu ci baax mu jàppale la ca. foo ca bëgg egg mën nga faa mën nga mën nga faa egg kon nan bàyyi caaxaan yi te ku nekk tamit sa ayib doy la sa ayib bopp doy la te nga bàyyi ayib yi sa moroom koo mën a laay biire mu ñëw ci lu baax nga def ko koo mënul tamit nga bàyyi ko te jéem a góorgóorlu ci baax rek te xam ni àdduna bi daal amul solo daal jërëjëf maam Thierno Amar jërëjëfati njabootu borom daaru muxti gi nga xam ne seetaan eh, seet si woon nañ leen ci émission bu am solo bi nga xam ne mooy émission nekkinu daayira yi kon mbokki Touba Argentine foofu la ñuy tàggatoo ak ba beneen émission di gërëm ki nga xam ne di ko santit mooy Serigne Gora Seck mi ñu nekkaloon ci caméra bi di leen wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa